par rapport aux autres défilés qui se passaient avant, franchement, j'ai été impressionné. J'ai toujours, moi, soutenu qu'il fallait armer l'armée. Et je voudrais féliciter le président Macky Sall qui a véritablement commencé à armer l'armée. Et je suis heureux de voir qu'il va poursuivre dans cette voie. Sincèrement, je me sens protégé maintenant. Je voudrais féliciter le chef de l'État, féliciter les forces armées, Aujourd'hui, nous, avons, nous commençons à avoir une véritable armée. Et on ne peut pas parler de l'organisation, elle est parfaite, mais ça c'est militaire, c'est tout à fait normal. En tant qu'ils poursuivent dans cette voie, et j'espère que ça sera le cas, et qu'il se fera entourer aussi de gens qui en veulent. Voilà. Mais c'est de se sentir en sécurité et de faire confiance aux autorités publiques. Merci beaucoup. Ça m'a impression, moi c'est un boss. Moi, pour Sénégal, ñu sant yàlla dañu am mbégte santaat yàlla li nga xam ne président de la république son excellence Macky Sall euh, nekkoon fii depuis sept ans yàlla mayaat ko euh, Sénégal yëpp gërëm sant li mu fi jot a def joxaat ko ndomba tànk pour mu continuer ñu sant yàlla bi nga xamante ne aussi forces armées jeunesse su Sénégal force de sécurité euh, ak école yi kenn ku ci ne daal fanga ne wane nga tey ne bu ñu joxantee loxo nekk benn comme niñ ko defee bi fi président Macky Sall nekkee ak ñeneen ak ñeneen ñi yëpp a Sénégal nekk benn jàmm rek lay jur moo tax tey mbégte la ci xol yi di ñaan yàlla rek lii continuer eh, ñuy gën a am eh, kóolute ci suñu bopp ndax Sénégal wax dëgg yàlla réewu jàmm la. ñu gis ne tey li nga xam ne moo di défilé bi dafa ànd ak dal am ab coppite ku ci waral ñu bëggoon xam lan moo tax dafa calme lépp sedd daal lu ko waral. ñëpp a sedd parce que dañu joge ci ay événement yu bëri mais dañu yéemu également ci niveau euh, organisation ak équipement wu Sénégal képp ku fi ñëw wala nga suivre da nga gën a am kóolute ci Sénégal ne ah yàlla may nañu ne suñu njiitu réew foyewul kaaraange bi te loolu itam lu am solo la ci. Euh, yokk euh, àggale li mu sumboon yokk ci leneen waaye nag daam lu ñu ci boole ren daa bëgg nag Sénégalais yi ñu gën a yaru. waaw gën a yaru discipline bi ndax nag développement mu ne su ko ànd ak anarchie moo ma jàpp ne koo xam ne mënoon mënoon discipline moom bay ba nga jóg sa bopp ma kee ngi ñëw ci sa kaw. le mandat est dédié à l'ordre et à la discipline on ne peut pas développer un pays sans dans le désordre et dans l'anarchie je crois que tout le monde est avisé et il faut que tout le monde s'y mette depuis la famille comme il l'avait annoncé hier jusqu'au sommet de l'État pour que le pays qu'on est dans l'ordre dans la discipline Quand vous parlez de discipline, euh, c'est dans tous les sens. Sur la voie publique, on ne peut pas se permettre, pour un oui, pour un non, on, on, dresse une tente, on tympanise les gens. Les véhicules, les gens conduisent comme ils veulent. Les gens, quand ils sont dans leur ils viennent à leur, ils sont en retard. L'absentisme, tout ça, c'est de l'anarchie et du désordre. Et il faut y mettre un terme. Ces questions ont été évoquées en tout sera fait. Dans les cinq ans à venir, le pays sera en ordre. la première impression, c'est la montée en puissance de notre armée nationale grâce aux efforts d'investissement de notre président de la République. Et nous sommes tous rassurés d'avoir une armée à la portée d'un pays qui grandit, qui se développe et qui va rentrer dans l'ère du pétrole. Euh, Très rassuré, même ému. Euh, je suis surpris et même surpris par euh, la montée en puissance aussi fulgurante de notre armée nationale. C'est vraiment la, la, bonne surprise que j'ai eue aujourd'hui. Euh, c'est ma réaction. Je suis encore fier, euh, je suis encore plus fier d'être sénégalais. Et quand je vois ça, ça montre qu'aujourd'hui, euh, la sécurité sénégalaise, je, je, ne me fais pas de soucis pour la sécurité sénégalaise. Et je demande à tous les Sénégalais aujourd'hui de comprendre et surtout euh, de respecter encore plus l'armée sénégalaise, la gendarmerie et tous les, tous les corps euh, d'armée. C'est ce que je veux dire, c'est la plus fière de sénégalais. sama yaram sax daw na mën naa wax ne tey jii nii lii ñu def tey ça se voit ni ay nit lañu et on a on a aujourd'hui ay ñoo xam ne tey jii vraiment seen bopp fees na ndax tey jii lu ku ko gis xam ni du caaxaan lenn rek li may wax moo di gënati naa gënati na gënati naa am yaakaar xam naa ni léegi nag ku ñu dal ci kaw mu daanu ku ñu dal sa kaw tamit nga gaañu.